jërëjëf merci beaucoup internet DS Prod gannaaw ba ñu leen nuyoo di am mbégte kontaan te jàkkaarloo waat comme ni ñu ko baaxoo di defee rek ginnaaw noonu nag dañuy ziar bu baax a baax suñu kilifa diine yeeg yu aada yi ñaanal leen sàkku ci ñoom ñaan euh, suñu borom wéral seeni cër ñoo di seeni fan ñu yàgg ñoo gunge ci barke sangu-sang yi tey nag ñoo ngi fii ci ma Mékhé comme ni ngeen ko gisee euh, benn kaa bu xaw a sensible moom moo ñu yëkkati. muy benn vol boo xamne dafa toftalu li nga xamtene moom lañuy wax viol na wala amul dañuy jàkkaarloog ñi nga xamantene ñoom la jëye boobu dal ci seen kaw ñu fas yene waxtaan ak ñoom ñu indi ci ay leeral soxna si ñu lay nuyu maa ngi leen di fay di fanaane naqar rek ak tiis mu dal ci sama kaw doom nag maako xale bi maako jur xale bu ndaw la xamul dara ñu def noo sama borom kër da doon garde léegi ñu ñu bett nañ ñu ñaari yoon ñëw nañ fa ñëwaat fa biñ fi njëkkee ñëw ja ay jaas lañ lañu dóor ñu njëkkee ñëw ni ñoom xaalis dañuy seet ñu ne ko ñun yoruñu xaalis ñu jàpp sama doom bu góor bi génn ko ba ci biti dóor ko beneen bi ñu del siwaat bi ñu del siwaatee bii bii nag ci lañu ay vingt vingt et une la ñu ñëw booba ki kenn tëddagul ñu ñëw bi ñu ñëwee ñu ngi fekk ci biti ñu toog ñu dóoraat même jaas yooyu ñu dóoraat ko doon quatre personnes léegi bi ñu doon quatre personnes dóor jaas yooyu bi ñu dóoree jaas yooyu ñun ñu daw tasaaro sama doom bi nag dafa tiit moom daw dugg ci néeg bi ñu fekk fi jàpp ko génne ko bi ñu ko génnee nag ci lañ ko yóbbu ba ci àll ba yóbbu ko fu sori def ko lañ koy def waaw mu métti lool nag tiis si ñun lool mm-hmm. te nag mu mel ni sax réew mi fi nekk nii xelu fitu kenn dalatul kenn nelawatul ñun dañoo sonn ñun waa ngaay ñi dëkk ngaay dañoo sonn ñun ndax kenn nelawatul ba yàndoo kenn amatuñ daal benn sécurité boo xam nekk nañ ci suñu dëkk bi amatul def nañ ko première fois buñ ko defaatee deuxième fois rek dafa neex ñu nekk ñu fi nekk ñuy autorité bi nekk ngaay waaw. Euh, ñoom bi ñu fa njëkkee ñëw ndax dem ngeen police déclaré ko wala. waaw dem nañu police déclaré ko ndax ci ci ci jour bi lañu lañu la woo ñi ma nekkal ñoom ñoo woo commandant commandant de brigade bi ñëw ñoom seen téléphone wadd ma for téléphone bi jox ko commandant kon damaa yaakaar ne bu téléphone bi waddee commandant bu xëyee suba war naa mën a gis gis gis ñu def jëf yi mais nag dafa bàyyi affaire yi muy traîner di bàyyi affaire yi muy traîner beneen jéer dalaat ci suñu kaw mmh. waaw muy lu métti nag lu tiis nag mmh. kon ñoom biñ fa njëkkee ñëw dañ fa bàyyi seen téléphone. waaw dañ fa bàyyi seen téléphone ñoom bi renfort bi dikkee nag lañ leen jox téléphone bi leen téléphone bii lañ fi bàyyi mmh. waaw bu fekkoon nag seen liggéey matale nañ ko dëgg-dëgg kon ci ci suba gi man mën nañoo feeñ te li ma gën a naqari mooy tey bi affaire bi amee nag tey muy lu métti li dal sunu ko am tey ñoom biñ leen bëggee jàpp dañ leen a jàpp. kon xam nga ne tey jii bu fekkoon tey jii bëgg na leen jàpp rek kon te premier ba lañ leen di jàpp mhm. waaw ngaay nag moom moom lii fi am moom moo am fépp kenn sàccatul daal ba feeñ nit ñi daal ci fitna lañ nekk ak coona te ñun ñëpp ci doomi dëkk bi lañu mhm. sonn nañ torop torop bu ñu waxantee dëgg mooy ñii fi nekk liggéeyuñu dara lañu liggéeyu liggéeyuñu dara mhm. dara dara lañ liggéeyu euh, bi bi ñu ñëwaatee démb lañu ñëwaat Eh, ñoom bi ñu ñëwee yéen nan ngeen def ak naka ngeen def ba seen doom boobu rëcc leen. démb bi ñu ñëwee ñun dañoo toog ci ci ci cour bi nii di waxtaan bi ñu ñëwee ñoom dañoo ñëw rek doo seeni jaasi. kuuru lan la ci école lañ nekkoon waaw dañoo ñëw rek doo doo seeni jaasi ñoom bi ñu dóoree seeni jaasi ñun dañoo daw man bi ma dawee maa ngi fexee rawale sama yeneen doom yi nekk sama benn doom bu jigéen bi mu dugg na ci néeg bi tëju ñu ñëw dajji bunt bi fekk ko ci biir mm-hmm. noonu la demee. yéen bi ngeen daween fan ngeen aw yéen li ngay rawale xale yi. ñun benn jardin boo xam ne mu nekkoon na foofu ci jardin boobu laa dugg man toog foofu waaw. yow ay yan heure nga rendre compte que ni sa doom yóbbu nañ ko. waaw ndax man maa ngi fi ma nekk te gisuma sama doom ci laa jooyee nag ni sama doom def nañ xam naa dinañ ko def lu bon sama doom bu góor bi ni ma yaay duñ ko def dara duñ ko def dara man ko xam naa dinañ ko def lu bon biñ demee nag ba ba gendarme yi ñëw nag ci laa génn bi ma génnee ma daw ñëw fekkuma ko fe ma woo ko wuyu ma ma xam ne yóbbu nañ ko. waaw ah, ci laa xamee ne yóbbu nañ ko nag bi commandant dikkee nag la commandant ñoom ñu taal seen oto dem biñ demee ñu ñu xool dégg xale bi di jooy ñu dégg xale bi di jooy ñu ñu doo ko jël xale bi indi indi ñoom ñoo indi xale bi commandant mu ñoo indi xale bi waa fekk nañ ñoo ñu daw léegi ñoom biñ ko biñ ko bi ko ñoom commandant indee lan nga constaté ci sa doom lan nga remarqué ni sa doom lii moo ko dal man sama doom bi ma ko xoolee xam naa ne ñoom def nañ ko dal ndax nee na ma yaay sama àddina yàqu na kon xam naa ne def nañ ko dal dóor nañ ko. dóor nañ ko waaw dóor nañ ko ci kanam dóor ko ci bopp. am na ay gaañu gaañu wala. waaw ndax ci kanam dóor nañ ko ci kanam ba mu neewee. lan ngay sàkku ci yoon ci mbir mi am. ci mbir mi li ma ci sàkku mooy yoon na def liggéeyam bu mat sëkk ndax yu mel nii dañ koy nës nasa te yu mel nii kenn mënu ko kenn waru ko nës nasa dafa bari ci réew mi ñoo xam ne ci lii mooy yàq seen àddina ñu nës nësal ko ba seen àddina yàqu dama man damaa bëgg lii ñu topp ko ba mu jeex takk takk takk loolu laa bëgg mm-hmm. waaw kon li xew ci sunu dëkk bi mooy ku ñu jàpp tey ba léegi ñu génn la ne ci dëkk bi di traîner lool moorul benn yoon ndax yu mel nii ku ko def war na laa tëj sa ah, tëj la sa giirug dund kenn dootu la gisati waaw ndax àtte bi nit kese la lañ la war a mm-hmm. moom ñu ko jëf jëf jooju ndax am na kum ci xàmmee. waaw am na kum ci xàmmee ndax bi mu xëy see suba ba yem ci moom dañu dañu dañu dañu commande kii kii kii kii la kon kooku xàmme na ko mm-hmm. waaw. kooku kooku mu xàmme moo egg ci kawam wala keneen. waaw kooku mu xàmme waaw. Mhm. ci kawam. moom kese moo jot a egg ci kawam wala ñoom moom kese rek moom kese nag ñeneen ñi ci des bi ñuy bi ñuy waaj a préparé di def jëfinu ñaaw woowu ci la ci la ci la lamp ñu seen lamp yi yi lamp yi di leer ñu ñun dañu ñu daw mhm. waaw loolu tax ñeneen ci des laaluñu ko mhm. lan ngay wax ñi nga xamante ni dañoo yor seen ay doom yu ndaw ci biir dëkk bi. xanaa ñu gën a téye suñu suñuy doom rek ñu gën a dee suñu doom tey bàyyi suñu xel chaque jour ñu xam ne ñu def ñaaw def defkati ñaaw tey fi ñu ngi ci dëkk bi fees dell te chaque jour ñu ngi lay teg bët di la xool te doo leen gis ndax lii xam nga dañ koo préparé bu yàgg ndax man lii fooguma ko defoon naa dinaa dund sama àdduna te duma am duma am lu mel nii waaw waaye lépp nag dama koo jël rek delloo ko ci loxo yàlla muñ loo ko yàlla waaw. xale bi ci ñaata at la toll. xale bi war waaw ñi def loolu ci dëkk bi lañu dëkk xam nga ay seeni mbokk ci dëkk bi lañu dëkk waaw seeni mbokk jot nañoo ñëw pour wax ak yéen wala déedéet waxuñoo ñun kay mais seeni mbokk gis nañ leen fa euh, dañoo am habitude léeg-léeg yu mel nii bu xewee si benn dëkk ñu ni comme ay dëkkandoo lañ wala mbok lañ dañuy bàyyi mu sedd ndax yéen da ngeen a pare pour waxtaane ko wala da ngeen koy topp ba mu sës déedéet man loolu loolu man musuma koo nangu sama àddina ay waxtaane ko déedéet nañ ko topp ba mu jeex tàkk rek mm-hmm. ndax loolu boo xoolee ñun lu ñu dal rek loolu moo ñu ko yóbbee ay waxtaane ko mm-hmm. te lii du loo xam ne la ñuy waxtaane la mm-hmm. téléphone bi nga xam te ne yëkkati ngeen ko jox ko commandant euh, moom dafa dafa dafa wax ni joxoo leen ko wala dëggal na ni jox ngeen ko commandant biñ ko jox nañ ko ko <coughs> mais bi ñu demee ba di ko laaj moom dafa weddi ni kenn joxu ko ko après nag biñ ko xuppee ba ni ko ni ko jox nañ la ko sama borom kër dikk ni ko jox nañ la ko ci téléphone bi nga ko jox téléphone bu baax sama tonton bi ñëw ni ko téléphone bi la jox dafa sikku téléphone bu baax lan la jox biñ ne ko téléphone bu baax lan la jox mu gis ni ñi ñi wax ak moom daal ay nit moom ñooy wax ak moom mu doog a arrière nag doog génne téléphone bi ni téléphone baa ngi nii waaw. kenn ci autorité yi wala ñenn ci autorité yi ci dëkk bi ñëw nañu gisee ak yéen. waaw monsieur le moom woote na woote na woor na ko waxoo ak moom waaw. xamal ko ni ko daal waroo woon a wax ni jox joxuñu ma ko ba mu yàgg ngay waxaat ni jox nañ ma ko loolu du sa du sa wareef waaw. jërëjëf ñu ngi lay jaajëf. waa kay